ay militant kàngam yu nekk ci parti awali le candidat bu ñu fësal ci bile parti di docteur Abdourahmane Diouf doon dëggal taxawaayam ak yéeneem nekk njiit ci réew mi ca élection yu ñu dëgmal ca février 2024. puisque foofu lañ jëm tey ku nekk di proposé proposer programme parce que nit ki yow sa bopp ak say diplôme ak sa jaar-jaar doyul il faut tam nga wax ñu ñu foo leen jëmee. dal parce que am nañ suñu xalaat ñu ngi koy wax ñu ngi koy bind ci ay téere suñu kàddu ñu ngi ciy liggéey. mais bu li tax ñu woote nii ne entrée libre ku mu neex mën nga ñëw parce que xam nañ ni suñu xel ak suñu xam-xam mën na doy mën na bañ a doy ñun dañoo bëgg changer te pour mu changer il faut ñu dog tënk yooyu def Sénégal boo xam ne Sénégalu sénégalais lay doon waaye nag bu sedd la ba jotee yow mi nga xam ne yaay sénégalais bi kenn du la ci jiitu. te moom jàpp na ni rek. mooy ki nar a wuutu. le président Macky Sall. ci élection yi ñu dëgmal. parce que man maay Abdourahmane Diouf te man bokkuma ci ñi di yàq ñu doon yàq boo leen waxee dañ naan ñoom ñoo am expérience waa dëkk boo xam ne yow yaa ko yor 1960 ba léegi nee nga yow yaa am expérience parce que yaa fi nekkoon def nga benn élection ñaari élection ñetti élection ba léegi ñu ne la yow ci ñaar fukki dëkk ak juróom yi gën a dool ci àdduna bi nga bokk jaar naa fépp pour xam adduna nu muy dox parce que boo xamul adduna nu muy doxee doo xam état nu muy dox fu ne dem naa fa ci adduna xool la fa gën ma ñëw yéene ko sama réew. tey je ne suis pas vieux je ne suis pas très am na expérience am naa jaar-jaar. de la concurrence à la concordance mu nekk ab téere bu njiit parti bi tabb di ci rek tënk noonee mu nar a doxalee réew mi mu juddoo ca Rufisque fukki at ginnaaw indépendance docteur Abdourahmane Diouf di rek woo ay partisans wam ngir ñu booloo doon benn yeggali seen yéene ay. kàddoom coalition bi di awale lañu ca bëgg rekk mooy awale réew mi yoon